donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li ngeen ci bagage ak moo ñu allah bu soobee yàlla central bil xayri wal mafaasim alhamdulillahi allazi central lépp loo soxla ci équipement cuisine si seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement dina jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi الحميد وللمولى تعالى الذي ربى فاني وماني وكرم به ربى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 ku feqee ñu naa leeram gi ëpp na xel te xam ni jant bu fenkee kenn du yéem a kanaw ku dee fi yéem kanaw kookee asal rëwagul sayaana ngi dégge ngi ab teena ngi dexe ngi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen nuyu euh, nekk fi tey ci Mbàkke Xewar ànd ak yéen seen émission Euh, wàccaayu màggal wàccaayu màggal nag buñ ko tuddee dafay baax ñu jaar ci mbooleem barab yi nga xam ne euh, jeexitali sëriñ bi dafa nekk ku ne xam ne ne Mbàkke Bawol fii ci Mbàkke Xewar fii la sëriñ bi gane àdduna di barab bu set la di barab bu tedd boo xam ne barab bu la donte ñu ëpp ci nit ñi xaw nañ koo umpale waaye numéro bi njëkk ci seen émission wàccaay màggal incha allah fii lañ ko ubbee ànd ci ak boroom xam-xam yi nga xam ne euh, ñu am am solo lañ te féete fii ci gox bi fii ci Mbàkke Bawol ñu gën koo xam ci Mbàkke Xewar sëriñ bi yàlla na nu may ay jàjjikat yu sawar te may nuy jàjjiloo kay jàjja kay rafetal mbàkke dafay étape bu am solo lool ci yoonu murit ndax fala sayxul xadim gane àdduna suñ moo dante sëli naka jekk fa la dëkkoon ndax mbakke eh, maam maar suufas maam maaram la soo xam ne dameel bu ñu wax dameel amari ngooni ndeela moo ko dogaloon ca ama shaq dadin eh, ci la ko dogal suuf soosu ngir ay relation yoo seen diggante yoo xam ne duñ ca àgg ndax histoire bu gudd gudd la nga xam ne fa lañ nekk eh, nga xam ne ab taawum la ko sancaloon ahmadu farimata ñu di ko donnante ba léegi sëñ mor ante sëri foofu la gane àdduna ndax maam Balla Aïcha fa la dëkkoon maam Balla Aïcha sax yilif na Mbàkke ñaar fukki at ak juróom-ñett waaye keroog biñ reyee doomam joo xam ne da ko bëggoon lool mu nekkoon ku bari xam-xam wax ne wax ne Mbàkke ci dàqoon bind dako cee war loolu taxoon ko gàddaay dem ngay siñi am fa ñaari at moom it ay ceddo fekk ko fa faat ba waaye bu ñuy dem dafa bàyyi njaboot gi sëñ Mor bokkoon ci ñi demoon itam eh, ca xare Mabo ci Saloum waaye daal Mbàkke la gane àddina fa la nekkoon naka jekk bi mu ba ba àggal dafa ñëw sañ ci Mbàkke yor daaram di jàngale fa la ko soxna jaar na fekk soxna jaar na moom ñu ngi cosaanoo eh, ci eh, Fuuta ay maamam gollare ca Fuuta lañ cosaanoo maam ji ñuy wax Ahmad Ali moo jógee Fuuta ñëw ba Jolof bi mu agsee nag fu ñuy wax Xube Siise euh, ka fa nekkoon Sëriñ Xube gis ne gis ko muy borom xam-xam di nituk yàlla la daj ci moom lépp nga xam ne am daal xemem teefu dëkk moom ca la ko téye nag ba may ko doomam ji ñuy wax maam Xuje Siise fa mu dëkk fa nag ba nga xam ne mu bu sobi googee ca ca ca Jolof ca Xube Xube Siise fala fala nekk baam maam Ahmad Ahmad Ali moom moo jur Matabara Matabara nag jur Ahmadou Bousso mooy gën si mu aw Mbaye mi nga xam ne mooy waajuru euh, soxna Jaara moom moom moo denc nag euh, soxna euh, Bousso moom moom Ahmadou Ahmadou Ahmadou soxna Bousso amul soxna bu sa ma la mu jël na soxna as sawaalo doomam ci am na soxna jaare mii nga xam ne mu waajur Seexul Xadim foofu lu jóg ne ñëw Mbàkke bi ñëwee mbakke nag fekk suñu woon sel nag la taawloo Mamor Jaara borom sam teg ca Seexul Xadim tegoon na ci ñaar waaye na ñaar ñam ca teg na ca teel a jóge muy soxna Faati Mbàkke ak maam Habibullahi Cheikhul Khadim nag foofee la gane àdduna ci ci ci Mbàkke ci atum 1270 muy atum charaa na ko sëñ ma lem Jóob waxitaan naar ba way ko xad wulidal xadimu man xad charaa chariatal muxtaari ama charaa nee na ki nga xam ne moo yeesal ngirum yoon bi saa sallam di di di Cheikhul Khadim ñu gane àdduna ci atum charaa charaa nag mooy la mooy dëppoog ca ati jant bi 1863 kon nag yam 1863 ci la gane àdduna moom Seexul Xadim foofu ci Mbàkke Mbàkke Bawol Mbàkke googu fala sax nekk faak waajuram si mu sëri ba dëgër faa jóge nag sanc xuru Mbàkke lu xuru Mbàkke it euh, dañoo fële eh, ci dëkk boo xam ne jege jege na dafa fekkoon nijaayam nijaayam Ahmadou Binta Kan Ahmadou Binta Kan nag moo soxna Jéey Kan mi waajuru Sàmba Tukulóor Ka ak Anta Kan mi waajuru eh, sëñ Mor Anta Sali ñoo bokk ndey ak baay kon Ahmadou Binta Kan nijaayam lenqee ba ko fekkee nekk moom nag ab diir nag di fa jàngale yor daara ndax fekk na daaraam di riir fu ne nit dafa jóge di sàkku si xam-xam suñu bon sëli ceegu nijaay ne ko nag mun mënta ñàkk nag nga sañc ndax kilifa day sañc ne demal ci xur wee nga sanc fa mu dem sanc xur wa xur wa nag ñu naan xur wa ca mbàkke mbake ba loolu indi turu xuru mbàkke xuru mbàkke suñu bon sëli moo ko sanc maam Habibullahi foofu la gane àdduna fa la wàcceeb liggéey fa la ab bànnee fa fala fa la euh, barabam nekk maam soxna euh, euh, faati itam moom dafa mel ne ay naar ñoo ko fëkkoon dem ak moom mu yàgg mu faatu ci yoon wi ñu denc ko fa fañ fañ am na ñu ne ma nga njaañ am na ñu wax leneen waaye daal mbàkke daal mooy seen cosaan tax na na boo te ñu di ko donnante bi fa Sëñ Tuubaa gënee àdduna ànd ak waajuram dem xuru mbàkke jóge fa am nañ fa ab diir doon faa jóge dem nag Saalum ca xare ba ma Maba Jaxu woote woon nga xam ne sëriñ sepp demoon wuju ko dafa yóbbaale sëriñ Tuubaa bañ demee ci la sëriñ bu soobee sañ ci naawel nekk fa moom as sabaalo son sëñ sëñ Mor Anta Sali sañ ci Poroxaan ñu nekk fa ay diir lañ fa am rek soxna jaar wàcc ab liggéey loolu laa war war a mu des foofa ñu denc ko fa waaye sëñ Tuubaa jóge foofa bi nga xamee na maba daanu na ba yëf ya tas mu ànd ak mu ànd ak waajuram sëñ Mor Anta euh, euh, dem Kajoor lañ njëkk lañ njëkk sax mooy mooy mooy mooy mooy lañ njëkk a dem euh, ci la sëñ Mor Anta sañ ca Pataar ci penkom Njaañ tuuti fa nekk moom ba sañca sañ ca ba Kajoor mu nekk faak moom ba tey nga xam ne am njàngam foofu la mate fale suñ moroon sali wàcc ab liggéey ñu denc ko euh, ba tey mu des kajoor waaye nag suñ mo suñ tubaay yoon sax fa nag am at bi at matin ci la sos nag yoonu murit waaye bi mu sosoo yoonu murit dafa dellusiwaat mbàkke gi xam ne ba tey ci la cosaan woon kon fale gane at nekk fa ab diir dem ba mujj mu dellusiwaat fa gannaaw boo xam ne sos na yoonu murit maanaam ci biir at mi sos yoonu murit nga xam ci gàddaay gi dafa 1882 ci biir at mi ci la del si Mbàkke fekk na booba sëñ bu soobee ngi fi fekk na mu jógee naawel ñibbisi euh, Mbàkke fekk na soxna Sabaalo wàcc liggéey fekk na fi itam magam borom saam mu ñëw dëkk ak ñoom atum xësasi nag wala dasasi ci la sanc nag Daaru Salaam waaye diir ñeenti at yi nga xam sax na ko Mbàkke itam ci bi mu dese yëpp nag mi ngi yor daaraam di tërbiya ak di jàngale moo fekk na eh, sun bam jox ndigaleel tërbiya muy loo xam ne eh, mag ñi ñi ko jiitu xamuñ ko ñoom noonu li ñu xamoon mooy mooy sëriñu jàngale rek nga xam ne sañ ndax ta loolu tàmbali bi suñu wàcce ab liggéey dafa dafa ko wuti ca daar ji di jàngale na mu doon jàngalee ba mu at nag suñu bam doo ko jox ndigal nag ne ko nga woote yoonu murit ca la woote nag yoonu murit muy jaayante nga xam ne jaayante léegi moo xew nga deen tërbiya di leen di xiifal di leen tàggat di leen tuddloo yàlla defal seeni xol defal seen i jikko ba nekk jaam yoo xam ne dañu ma sëkk seen borom ay jaam ma sëkk kutaat yàlla ci kaw suuf loolu ca léegi léegi ba rëy <clears throat> ca Mbàkke ba nim sanc na Daaru Salaam àggalee fa àggalee fa tërbiya ga sanc Tuuba am fa juróom benn at matal lépp ba sanc Mbàkke bari ci Jolof nag foofu la jógee na dem ci géej gi soo defal tawfeex ak asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu mbokk yi lii lañ leen jëlale woon ci Mbàkke Xewar di bi nga xam ne fi la sëriñ bi gënee àdduna